呃， halaan bikum juróomi xat ginnaaw bu juróom ñaari doomu xaadama faatoo ñàkk seen bakkan ca avion Sénégal ba daanu woon allah libération moo ñu xamal ne booba ba léegi xamuñu ñan ñoo ko def te teguñu kenn ay daan enquête yéene kaay ne gaañi daal ubbi nañ ab enquête xamoon nañu ci tegoon loxo waaye fi mu toll nii furaax daal li xëddéem lépp doxee na fi tàbbi aljana libération na ko monté asegna ak ANACIM ak Sénégal Air ku nekk xam na ne seen loxo taq na ci biir enquête yéen a kaay ne waaye li ni mel nag warta jaaxal kenn ndax réewum Sénégal li ni mel yàgg na fi ayaw seetal yéen a ngi fàttaliku batalo joolaa fa suuxoon ci géej gi doomu aadama yu bëri ñàkk ci seen bakkan ba tey ji ñuy wax ak yéen fan la yëf yi mujj léeba nag lu pen xamul kenn kuñ ci teg ay daan wala kan moo def yëf yi Abdoul Mbaye nekkoon fi njiiti jëwri nii ne Macky kay ak ñoom àndal gouvernement bi fa mel ni faala sénégalais yi ndax mbënd mi juróom-ñaar téeméer ak juróom fukki milliards yooyu ñu ci dugaloon gaañu fanaan lañ ko def waaye dugaloon ko ci mbënd mi de te su ma leen waxee dëgg mbënd mi topp toppatoo tut ko fi mu toll nii askan wi sax fañ leen a seetaan kàddoom yaa ngi ci tribune yéen a kaay ci 24 heures yéen a kaay Abdoul Mbaye ne askanu Sénégal léegi nag yéen a ñi nga xamante ne fañuy pasar pasare seen xalal ji di seetaan seen i jafe-jafe kanam borom a koy fajal boppam l'observateur na ko ginnaaw mbënd mi banlieue bu Ndakaaru ñoom xay weñ ñoo sonal weñ yaa fa bëri tasaaroo booy lekk ak naan fa ñuy xeexee sonal na ko gaa lijjanti critique Mbàkke ak gouvernement bi na leen na yëf yi leer critique yéen a kaay ñi ko xamal la mu ñu xamal moom la Soleil yéen a kaay mooy Macky xam nga lan la bëgg a lijjanti autorail bi chemin de fer bi moom la bëgg a suqaliwaat ci Sénégal aa ah, yaaw seet tal téeméer ak juróom benn fukk ak ñett ci ay millions moom la ci Sénégal di ñàkk at bu yàlla sàkk loolu baaxut suñ koom-koom le soleil yéen a kaay na nguur gi tëral nañu ab palang nay leer leneen lu leer ba yegg ca nan ñi ja mooy ne langue politique gi ci Sénégal fa ñoo lajj daanu ba xalagu ñoomi neen seen biir ñoo doon waxtaan ba léegi mënuñoo juboo ci kan moo leen di jiite rawatina ku jégi ba tax si du ne lii dafa ruus lu gàcce la ba tax yéen a kaay bi ne foogu sax dialogue ba fañ ko war a ko mu jeex ndax ñi fa ñuy foxanto fi mu nag Macky mooy xattee a na ko am na sax ay expert seen xam-xam màcc ci wàllu yi jox na leen yëf yi ngir ñu lijjanti ko le quotidien yi ne kaay na Macky daal moom bu koy lijjanti ku nekk xam na lan lay def ndax bu ngeen fàttali ko 2016 njiital opposition bi moom fa waxoon ki topp ci gannaawam ci élection yi kooku la war a nekk ki nekkoon njiital Dakar dem dikk Moussa Diop ginnaaw buñ ko kajjee football dàq ca biti tey ci source a yi ne nee na fa xam ñoo xam ne fa ñoo nekk ci rajo ak télé yi bëgg maa ma complètement di ma tuumal lu ma defut ak ay waxu caaxaan caaxaan waaye ngir yàlla nañ ma may rek su ma defee son passation de service jébbal leng yi ki ma a wuutu ba pare faay ñàkkante ak ñoom xamal leen ne man président Khalifa Sall de na leer ci seen bopp yi tribune a kaay na ko yow li war a leer yow sa bopp mooy na Macky kajj nañ la dàq génne nañ la fa enquête yéen a dëggal xibaar bi le quotidien yéen a na leen hey fa ngeen di def ndànk waa Macky ya xam na ñu d'accord ci ñu dàq ko waaye xam na ñoo xam ne nay leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na Ablaye Wade dëgg-dëgg kàngam la ci wàllu politique histoire jaar-jaar li mu def ci réew tal bañ bañkat la nekkoon na ab kujje mujj jiite Sénégal nekk tamit avocat bu njëkk liggéey ci réewam laata ñu jot indépendance Dakar Times moom di ñu xamal ne juróom fukki réew ak ñeent ci dendu Afrique ñangay ngay sàkku ñaar téeméer ak ñaar fukki millions yu vaccin ngir faj corona bi vaccin ya nga xam ne Russie ñoo ko génnee Afrique nee na soxla nañ laas yéene kaay na ko vaccin yi kaay am na ñu ne baax na de ba tax gaa ñaa ngi koy xëccoo direct news ne ko xamul ndey fa ngay nàmp maam di amuñ beneen vaccin te corona bi fay fararari fay raye fay law Sénégal rek démb rayaat na fi ñaar lim bi toll ci ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ci ñum raayagum nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne bésu tay bi juróomi fan ci weeru satumbar ci la ñuy xamal màggalu ñaari rakka ya ca ndar 24 heures yéen kaay ñu ko xamal élage ma dikka wàdd la jox kàddu mu dikkaat ci solo màggal gi la ko wundu njëriñ li ak la ko tedd ki xaadimu rasul xamaloon ca ndar ñi doon wax nag naan yoonu murit du yàgg léegi mu jeex xanaa tey jommi nañ de tey la gën a bëri doole tey la gën a yaatu luy dëgg rek dafay yàgg tàggat yaram Barcelone ak seeni supporter kontaan nañu Lionel Messi Messi moo waxal boppam ne dematuma Barça laay toog benn at rek nag laa wax stade yi ñi ko xamal donte ñaawlu na président Barça doxalinam te yàgg na leen a wax li nekk ci équipe moo taxoon ma bëgg a dem ñu ne ma doo dem xanaa déwén rek te bëgguma xëccoo ak Barça di yóbbu ci wàllug yoon ndax lu nekk defal naa ko Barça lu nekk it defal na ma ko sunu làmb yéen a kaay jox kàddu Xaadim Gajaga njiital Rock Énergie nee na Mohamed Ndaw Tyson d'accord uma ko mu jiite CNG bi de làmb ji déedéet nañ seet keneen parce dama koo doon itteelut ma pour muy leer vox populi du ñu xamal mbir mu métti mbir mu doy waar naqar ak tiis bu dal ca askanu kunkande nekk ca département bu Wélingara région Kolda ayaw seetal benn elaw candidat bu doon def baccalauréat fa mu doon defee examen fa la toog rek biir buy métti lool daane ko ñu xenu di yóbbu hôpital mu mujj faatu ñàkk bakkanam allah yéen kaay bi na jibi Sadio la tuddoon elaw bu mënoon a jàng yaru ay waajur xamoon ci moom métier noonu kenn mësu koo gis moroomu élèves yam doon def ak ak jàngalekat ya ak askan wa ñoom fa ñoo jommi jaaxle boole ci naqar ndax lii fa métti li ko rey dëgg-dëgg nag ba léegi xamuñ ko biir bu métti rek lañ wax de li ci jaaxal ñëpp nag mooy waxtu examen bac def ba bés bu mujj rek nga faatu ci anam gu gaaw ah fii rek la la bët yem